juróom benn waxtu ci ngoon moo jot sëngam fii ci Dakar Sébi xotaan ak li ko wër moo jot ca kër Moussa ak ca kër Séga mbokki groupe Mouhalim info yëpp asalaamualeykum aleykum rahmatullah seen mbokk la Xaadim Thiam di addo fii ci groupe Mouhalim info numéro un di leen fàttali ne tey jii la dibéer fanweeri fan ak benn ci weeru mars deux mille vingt quatre ñu tënkal leen xibaar bii nga xam ne xibaar bu doy waar la xew fële ca Mbàkke Bawol buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi di seen actu point net. rab bii ngeen di jàkkaarloo daal ci photo bi nasaraan di ko wax un ratel ba xamul nag nan la ko olof di wooyee waaye daal moom la ñu wax ni démb euh, bërki demb ci aljuma gi la ca Mbàkke bool dafa duggoon ci benn kër kër googe sax nañu ki euh, borom kër ga nag genn waa ju sant Fall la turam mi ngi tàmbalee see sant wa di di liggéey itam nekk euh, dal benn di liggéey ci RTS nañu suñ Fall mii kat moom rab bii bi mu duggee ci këram bëgg a attaqué këram. dafa daal di takk fitam ba mu dëgër nag daal di wut ngannaay bu ñuy wax jaas yi daal di jàmmarloo ak rab yi ba faat ko nañu itam ginnaaw bi sax la waa la informé waa o et moom sëñ Fall mi kat mi ngi nettali itam ni ci ëllëg sa itam di gaawu ga ci guddi gi déggaat na ay ab bruit bu doy waar bruit bu étrange bruit daal boo xam ne baaxoowul di ko dégg te njort na itam ne rab yi boo moytuwul moroomam daf moo fa nekkaat ndax da ñoom seen dëkkuwaay yu soriwul ay dër ay ay ay jardin maraîchère ay toolu dër daal ak ay bërëb yu bari ay ñax ak ay garab soriwu ko ba tax daal xeeti rab yu mel nii dan fay faral di nekk moom nag nee na bi mu fàttee rab bi itam woo na waa eaux et forêt daal leen koy wax ba ñëw fa waaye daal expliqué wul nag dëgg-dëgg ginnaaw bi itam yan matuwaay ak yan taxawaay la ci waa eaux et forêt taxaw waaye daal moom mi ngi woo autorités yi rawatina préfet beeg yu ni mel ñu ñu jël seen i matuwaay ba fexe daal eh, jëlee fa rab yu mel nii ndax rab bi rab wu dangereux la li muy ndaw ndaw noonu yi nga xam ne nañu fukki fukki kilo juróom lay war a peser euh, guddaay war a toll ci soixante quinze centimètres euh, matu sax un mètre hauteur ba taxul mu njool lool ndax itam ay fanweeri centimètres ak lu ko topp rek nee na daal loolu lay njoolee taxawaayam taxawaay tol toll noonu la am waaye teewul rab bu dangereux la boo xamante ni euh, borom xam-xam yi nga xam te nañuy saytul lépp lu jëm ci wàllu rab yeeg yi ni mel nañ ko moom ci rab yi gën a dangereux ci àddina bi daal attaqué nit. indil ko jafe-jafe du dara ci moom ba tax daal moom sëñ Fall di sàkku ci kilifa yi ngir nag ñu daal jël ay matuwaay ba xeeti rab yu mel nii nga xam ne njort na ne bari na seen gox boobee ñu jëlee leen fa bala fay euh, jëyee di am Mouhalim info.